Euh, su ñuy wax nag Basiiru moom Badar la bokk euh, muy dëkk boo xam ni dëkkub alxuraanul karim la euh, ku xam Badar xam ni ki ko sos it li ko taxoon mu sos ko leen rek la mooy jàng alxuraan ndax fépp fu mu mës a dem sax bu ko fa nit ñi fekkee mu xam dina yàq jàngum alxuraan ji da ko feneen kon foofu laa sosoo bu fekkee ci wàllum jàng tamit ñi may gis xam nañ ma bu baax man Al-Azhar laa jàngee bu sëñ Murtala fa laa dalee jàng tey ku xam Al-Azhar xam ni produire nañu bëree bëri ci ay boroomi xam-xam fa laa jàngee ba ni ma fa amee BFM Euh, continuer di jàng ba am bac bi ma amee bac it dem université def fa deux ans bi ma fa defee deux ans nag ci laay doo koy tourné waat ngir mokkal alxuraanul karim nga xam ne man yéex naa mokkal alxuraan lool ndax damaa jàng ba sori xool sama diggante ak alxuraan gis ni xaw naa cee feebul lool lool ma daal ci defaat yi ay jéego defaat ci effort dem ci ay daara yoo xam ne damaa laxasuwaat bi may nekk mag dem daara ngir ngir jàng alxuraanul karim ak yoo xam ne samay effort bopp la ja surtout sax jamonoy Covid bi nga xam damaa ñëw Touba ñu tëj ñu fi daal ni amul génn ci raison yi boobu nag ci laa jàng alxuraan nag ba mokkal ko ba xam ni mokkal naa ko Eh, kon Covid bi am na njariñ de. waaw ah, allah man kay Covid bi moom bokk na ci ñu bare bëri dañ ciy naan dañ cee loru waaye man moom Covid bi daf maa jariñ ndax dama ci laa jàng alxuraan tëju sama bu ñu naan soxna Ndeye Guèye laa doon jàngee ñoom mujj gi sax dañ naa waa kii xanaa daa nekk daara ndax dama fajar gi yëpp damay jàng ci kaw moo tax man alxuraan dama ko mokkalee ni ma ko bëgg a mokkalee moo tax yu bëree bëri laaj may laaj tamit foofu laa ko jëlee rek jamono jooju may tëju di jàng alxuraan macha allah mu ne borom xam-xam yi waxoon nan ko nee na mënoon ci am luñ ko exploité bañ a bàyyi temps bi rek mu widdi noonu dem mm-hmm. eh, macha allah jërëjëf suñu Basiru ñu gis la nag nga indi phénomène bu bees boo xamante ni mm-hmm. da ngay wër di dem ci raison yeeg ci daara yi di xool xale yi mokkal alxuraan mm-hmm. nga mel ni da nga leen di toppata toppal ñenn ñi ñenn ñi nga dikk ci xeeti ruube yi yenn ñi nga dikk ci xeeti saar yi nga xam ne dafa nuroog yooyu di leen ci kii loolu ban nga jël esprit bi macha allah comme li ma la wax rek c'est que man damaa dem ba nekk mag yëg ni kat alxuraan man néew naa ci doole ma dem jàngiwaat ko ba ma ko jàngee tamit ma gis ni mokkal naa ko ma xam ni kon lii lu mën a nekk la euh, ma seetlu tamit am sama waajoo xam ne dañ doon daje jamono ju nekk di fittante ci alxuraan bi mu duggee ci marché bi benn jour ma fittu ko ma gis ni kat mi ngi dellu ginnaaw ci alxuraan ji te marché baa ngi koy tàmbalee jàpp bi ma ko fittee ci mbooloo rek mu daal di juum mu xaw a am kersa ma daal di bi ma delloo ca kër ga ñetti fan ñeenti fan mu waxaat ma ñëwaatal waaw keroog da nga maa bett nangam nangam ndakate moom loolu def ko aal ba mu dem nafari ba ma ñëwaatee gis ko mu daal di mokkal normal ma kon lii aw yoon la hmm. boo xam ne suñ ko wanee rek insha allahu rabbi dana tax nit ñi di gën a nafar alxuraan benn baa ngi noonu mooy gone hmm. yu ndaw ngir gën a motiver waat waajur yi ngir ñu jël seen doom yi jox ko daara mu jàngal ko alxuraanul karim soo gisee it lépp lu may wane phénomène lay doon ca mbir ma ndax keroog maa ngi dugal xale boo xam ne ki ñaan soxna jaara daa mokkal alxuraanul karim dem di jàng français ba nga xamante ne nii bi mu mokkalee alxuraan dem jàngi français toog na fa plus de dix ans te teewul ba tey mu téye alxuraanam kon loolu leçon la ci ñi nga xam ne mokkal nañ alxuraan ba pare waaye nekk ci école français bi di jàng yenn saa tamit ma wan la koo xam dafa nekk ci métier ba pare yor alxuraan kon yow mi nekk sa métier tamit mën ngaa xam ne alxuraan mokkal ko mën naa ànd nga nga yoraale sa métier kon message yooyu laa ciy jàllale macha allah.